سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر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 ku bari alal la mën nga dëkk fu ñu wax ndakaaru cay jamonoom mboole mi lébu yi moo leen ëpp alal dikkoon ne fi sëriñ Tuubaa siyaare ko nuyu ko ne ko day Mbàkke ba ko sëriñ bi laaj ne ko luy say tànk mu ne ko man de maa nga dëkk ca ndakaaru ndax dafa am yent yu ma bëgg yoo xam ne yi astaxfirullah asaka jaa ko jiitu da ko ne maa nga bàyyi ko ca ndakaaru mu ne ni sama asaka ci yow ndax dañ ne asaka nañ ko jox ko jaamoo yàlla sag jaamu nag gisuma ko ci àdduna de man tijaan laa waaye nag teewul ma xam sag jaamu rek amul ci àdduna sëriñ ne ko tubaarkàlla mu ne ko moo tax moytu ci la ko sëriñ ko sëñ bi ne ko def nga lu baax waaye nag may damaa bëgg nga ñëw dellu ndakaaru soo demee ñii ma lay wax nga wut leen soo ko xamul nga dem ci ku leen xam nga laaj ko yàlla sàkk na juróom-ñett ñoo xam ne ñu ñoo war a lekk asaka soo demee ci alim dana la ko xamal nga jox leen loolee ndax man damay dindi asaka kuy dindi asaka doo lekk asaka ndax kon ku dee dindi asaka kuy nangu addi doo lekk asaka kuy dindi asaka du lekk asaka kuy nangu addiya du lekk asaka sim nañ ko ci moom kon nag soo demee boo ko laajee des na la ko wax soo ko xamul nga ko ko xam mu wax la ko su ko defee ñooñu nga jox leen ko kon ba tey am nga yoolub mën nangu ko alaaji Alsaan Ndir jóge na fi sëriñ bi dem na ndakaaru na ko sëriñ bi dig leen def na ko del seeti ci sëriñ bi indi ñeenti téeméer te booba ñeenti téeméer jafe na lool ndax booba benn dërëm wadd na ku ne ndax booba meetur perkal ñeenti koppar la waaye janag ñeenti téeméer ak ngurdu booba jafe na mu dikkati sëriñ bi ne ko lag ma waxande def naa ko mu ne luy say tànkati mu ne ko damaa bëgg yent te yooye yow rek laa defe ne yaa ko mën mu ne ko su ma ko xamee te muy lu yàlla dagganal day danaa ko def bu dee waxe daana ko wax te muy lu dagan yàlla sant mu ne ko waaw li ma lexee defe naa du du araam mu ne ko waxal ma dégg mu ne ko am naa alal lool boorim li bu yëmoon dëkkal maa leen waaye nag damaa amul doom ju góor jenn doom jigéen képp la ma yàlla jox ma bëgg nga ñaanal ma ma am doom ju góor joo xam ne jii sama fi bàyyi koo lu ma ni sëriñ ci yàlla ak ci yant bi mu mën na ko àggaleen mu ne ko ak lan mu ne ko damay jaay ak jënd te bëgg mu barkeel mu ne ko ak lan mu ne ko damaa bëgg gudd fan lool ndax mën a jëf loo xam ne lii danaa ko mën a jëriñoo yow man xëyaamati mu ne ko ak lan mu ne ko damaa ragal dee lool bëgg su ma dee rekk astaxfirullah dafa ko ne damaa bëgg a gudd fan lool ndax damaa bëgg liggéey fi loo xam ne dana ma jëriñ yow man xiyaam damaa ragal dee lool bëgg su ma dee rekk wuti aj wuti àjjana bañ dem sawar yooyu mooy li nga bëgg ma sëriñ bi ne ko li nga bëgg day jafe la booy mi nga bëggee dara li ci yombul waaye nag des ne tegtal yoon woo boo ko jaaree te wàcculoo ko da am la nga bëgg ana muy lan doom jooju nga bëgg da dem ci jigéen joxe bëgg na la nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga am loo ca def te la nga ci def lew fa yàlla su ko defee day boo ci amee doom sunu borom dana ko sàmm ba mu def li nga bëgg alsaan tontu ko ne ko man de mbàkke loolu mën naa ko baax a baax sëriñ mi ne ko defal ndànk bul gaawtu de niwu soo ko defee am doom man loolu waxuma ko ndax doom yàllaa koy dogal dama ne bu ci yàlla dogalee doom laa wax moom muy dogal ba nga gis doom ju góor joojee nga xam ne yàllaa ko ci dogal moom dana la ko sàmmal faw boo xëyee da ngay jaay ko jënd te bëgg mu barkeel na nga jaay lu bindéef yëpp kon day loo jaay barke dana ci nekk ndax jafe lu njëg day wala te alal ba mu jafe nga di ko jaay ci sukuraat lay nekk moom sa sukuraat dana metti lool ndax dangaa amul yéen mën ci bindéef yi soo xëyee dangaa bëgg a gudd fan na nga wat wattu yaar feccik ak bokk ak dog war ma ndax yàlla tëkku ko laa tan xas lay meen ba te kii di yàlla ko wax ci alxuraan ndax loolu nu de mën naa gàttalu fan soo xëyee dangaa bëgg boo dee rek wuti àjjana bañ a jaare sawara na nga seet la yàlla digle nga nekk ca faw ko faatu boo ko xamul nag nga dem ci ko xamu xamal la ko nga seet li yàlla tere nga bañ faa jaar faw ba faatu boo ko xamul nga dem ci ko xamu xamal la ko yii ma la wax de soo defee nii ma la wax de da am li li nga bëgg yow wasalaamualeykum wa rahmatullah salaatu lazi